mayaat na loo xam ne lam moo koy def ba ki lay déglu mën a fara mën a xam li nga wax ci biir nag xel ne moo koy def yaa koy leerlu man koo xam kamaa nag ma duka nit ñuy fàtte la alama ci la nga xam ne ak faxta jotal nga ko mel na xattaay ci mooy ci may may yu rëy nga xam ne jotal nga ko ci ñun kooku ñu ngi la ciy sant muy def waxaat balta nga yor ko it minal xitaay ci muuraay muuraay kiiraay kiiraay eh, muuraay yi nga xam ne moom nga ko ci sunuy ayib ba ñu bëri ci biir nga xamat ne ko kooku ñu ngi ciy sant wan na moom ñu ngi muslu ci ka jeew min sirrati lasani ci kon ak fasaha boofu loolu la xasari ak dekk ci bébant kamana na moos ni ki ñuy muslu ci ka jeew min maarati lakkani ci asari ayibam dotoon boofu loolu la xasari ak tëju gàcc tëju bëgg a wax te li nga bëgg a wax doo ko mën a wax wala takwiiji de sa ko fego bi tum cewa al ibtitana sinnahu itra'il maati je qababalu ati kat wa iqla'il musamiyat moy ati kat sabana takwiiji de sa ko fego bi tum cewa al itra'il maati je bela ati ibat wa akil a ak xot sa fi wala sa ko kat ni sa ko jéggal min fawqi saawaati ci màng ay bànneen ila suuqi subaati subaati ne koy jëjaañoo la ay lënd ñu koy jéggulu ñuy jéego yoo xam ne ñu ngi koy dox te jëriñ wuñu ko dara ci loo xam ne lii luñu leegum la xamuñu loo ñu aye la xamuñu loo ñuy maye kamaa nastaxfiru kan ki ñuy sàkku njëggal la min naqalil xatawaati ci toxal ay jéego ila xitatil xatiaati jëm ci sigil yaay xale yu ñaaw teg wa nastawrib min ci mayu it min ko jeew tawfiqan ak dëppale wa qalban xaqan mutaqaddiman ak jàllatu ko maanaam ak dëpp wa lisaan ak laa mutaxal yan bu ak tasaari wa nuqan ak bu ma jël wa idaaba wa hasimanan ak boobu qaayran basira xanaa di gisal xol musriku boobu danañu gisee biaa ci ñun xerbaanan xadre xam dogal ñu ngi mayu ji yooyu tamoo ñu lay ñaan ba tey ak Bye-bye. وقل تكفى وأنت وأنت القائل بي أن أنت المنزور وغير ذلك وما أرسلناك به من جبل إلا رحمة لك هي الرحمة للعالمين من جبل اللهم يوم الظهر وصلي وسلم وبارك عليه محمد وعلى آله أجمعين على هذه نجد وجه وعن هذه كتابا والذين قبل سألوا يكتب من يؤدين دين به واجعلنا يلا قدرني متبين نجد وجه الصبر بهديه يوم يرن به صلى الله عليه وسلم وهديه أمير صحابه

alladi hemma def ki nga xam ne rakkata dal na fi haadal xadri ci la jamono yi woo galawam xelmaa def ki nga xam ne moom jeex na tàkk galawam sax ma ne dalal ubbatul waxabat dafay masaa bi woo ay nambam dawante bi jiyoya seeni bi jiyoya moo di siturul maqaama di tudd ay maqaama allati maqaama ya nga xam ne ibtadaa tentoon na leen ba diyoon sama ku ñëw ba diyoon sama waxal laa ma su xamataan na say xamaa ko nam ëkk ku ñëw xamataan rëy moo yal na yërëm ko allahu taala ko nam وهذا كثير من الأمة المتوسطة لما أتى مبارك مقام إلى أبي السلمي الكتبي وأبو الفتح الأسكندري في كل مكان وهكذا يوم المسلم وإسلام يمسك مريم إلى أن يأتي بالسلمي وأن يأتي بالسلام بالمدينة وكلاهما في سبيل الله من أبو مجد المسلمين لا يملكون له ربهم ومجد المجد وقبل إذا فتح في السبيل ورثوا وأثار الذين man kilifa goo xam ne idaarat woo ak ñu nga daal hukum naatale lu nga daal rek la kenn dañu koy nattaale wataa kilifa googu nag mooy yooyu ilaa mu si ajab ci ñoom maqaamaadan ay maqaama ngay dem àlloo yooyu dana nga topp si aj ñu ngir wal ba dee yoonu ba dik way nag ñu ci wante man nga jot ak taali wa aji toog wala li ngeen defam aji toog wante nga xam ne daal nga xam ne mooy toog mun nga jot nga xam ne daal jot ko man man man ma ci dara jot man maa ngi ci ma toog di taxaw ba maa ngi mel ni ci toog kon nag ma bëgg a toog ba di wax sama ne toog bi ma ko daa doon waaye bu ma ko dafa

boppam dañuy wax itam ne laa yazaalu almar'u fii fitnatin min amrihi maa lam yakun siiran aw aw aw yu ak itam nit ki itam mu ne bu dëñ mukk nekk ci liberté boppam am jot ci boppam am jot baa mooy wëyee nag wala mu taali ci boobaa nag bon liberté boobu dafay dal wasaxalu dafa sàkk wa xàcc min haadal maqaami ji bilem maqaama alladi boo xam ne yahaaru dana gëlëmee fii ci moom alfaamu dégg wa yabrusu te dana mu jiitu alwaana njortu wa yusbaru te dana nga natt wa xawlu naa xale ko dankal wa tatabayyan te dana gisee ca qiimatul mari xay naa waaye tan fandi ci ngëneel wa yultaru te dana loruloo saay boobu boromam ilaa an yakuna jëriñ bu mu nekkal ka haati bi léegi dig aji saxal ci guddi wa xaami bant fa sunuyoy bant sax yooyu bant rati ñu diggante boobu rek kon nag lu mel ni dem ci dugg mën naa doo xam ne du wax ci rafet doo xam ne dara laa yow loo jëlaat ci rek soo fexeel ba am loo wax daal aw jaari bi rek wala aji tagge ji fa tànk eh, wa xëyrin ak far wala bu dem bokk ci suba te bu looloo may yow waxu rek nga fexe ci nekk boobu mais damay bokk ci bokk ci yow dara lay wax ba nga xam ne yaa ngi gannaaw waxal na naa sax dina ñëw nag suñu na nekk saaran ak bëri di wax waxal na itam suñ toll daal ci li ñu ko na diggal bu ko digal mën naa am na de ñëw na bu mu muccee xalaat yaay mën naa wax loo xam ne day feeñal ay doom xaw wala xàcc leen la ñeel ko sax nga saaroon fakkatalu kooku sax nga xam ne li ñu ko na diggal rek mu dugg mën naa am sax na de bu duggee bu ko defee ko si jàppal nga dañ naan ko bëgg nañ moo ko def ko fa falam naa ba nga xam ne ne ma ci départ bi ci xàjjil boobu wala am baata bay na bu ñu maqaala bi ci wax ji ma daan wax ndax bu ma gën na téere bi ma doon wax kon tàmbalee la la bay tu may dama dalee xëyub daa wata woo wooteem ba tarbiyatal mu tee xëyub aji topp may ma dalee nangu rek nag tàmbali téere bi ba basal du dama joxe fi mu taawaati ci toppan jiw daal mu satien fatlu aji man waan say du ma soog xam si ne juróom fukk ca kanam maqaama tam ci maqaama alaama ànd ak la nga jëflante moom mm-hmm. min qariyatin cim xel mm-hmm. jaamidatin mu daaji way mm-hmm. wa fitnatin ak xel xaanidatin mu daaji fay wa rajitin ak solo naalibatin di da way xóot ah. wa ummumin ak nite naatibatin di way solo wa wa xurari bayaan ak taaram bayaan wa surari ak baatam yu mel ni ci wa mm-hmm. mu layil adabi ak way eh, rafeti ngeen mu adabam mm-hmm. wa nawaadiri ak way tumaraange ngeen mu adab mm-hmm. ilaa ma ba jëm ci loo xam ne sax wasatuwaa gañaa yeleen maqaama yi di ñoo min al ayaati ci ay aya alquran yoo maa ngi koy dugal ci biir di ko bi wa maasini kinaayaati wa maasini ak way rafeti kinaa yu ma ci def wa santu wa tama minal amsali jigéen al arabi ko ko ñu arab wala taisi ak tew tew al adabi yede ko ñu ngel mu adab wal ahaji ak jami an nahu yede ko ñu naw wal fatawa ak yurbi al lugha yede ko ñu lugha wa rasaili ak letra al mubtakarati yede ñu xigal mooy yoo xam ne maa ko njëkk a def wal xutba ak xutba al muhabbarati yede ñu ngeen ñal mota yede ñu rafetal wal mawahidi ak wa al mulikati yede way al mubkiyati yede way jooyloo wal alayi ak waxire al mulkiyati yede way soxlaal mi ma ci loo xam ne am lay di fidel naa ma jamia wa léppam ala lisaani abi zeydin a làmmiñu abu zeydin a kada ko isroj waab natu sama wéet riwaayatoo nett li xibaar yooyu ilal xaaris dina ci ku ñuy wax xaaris ibnu hammaamin kay doomi hammaam al badri kada ko jug badratu dégg nga nee ñu bokk nañu li nga xam ne xarit yi gañe na ko ba diwa samaan mm. ba diwa samaan daf la waxoon ne abul fati boobu daan mu daan wax ne mooy dem xibaar yi mm. ak ñeetaa ibne itaal mi wax ne ñoo ko daan nettali mm. ñooñu du wuñ ay jëmm yoo xam ne ñoom la jublu mm-hmm. xanaa daal ay tur la yoo xam ne rek amuñ musamma mm-hmm. xarit yi nag ah, euh, xanaa ci Abuu Zayd li muy wax waxaloon naa nag ci xam-xam bañ nekkee woon te moo de bu juróom bu ñeent fukk baal juróom-ñetteel ne benn góor moo dikkoon Basra bi fi dëkk ca quartier boobu mu dëkk ñu wax ko Noirab waxoon ne Abuu Zayd la tudd te waxoon ne itam doomam bu jullee lu ko tax a la lépp lu jullit amoon ci njaboot nangu seen i alal musiba ba ca gën a rëy mooy dañuy jàpp doomam bu jigéen boo xam ne mënu muñal te doom boobu dañoo wax ne bu ko jotul du ci jot muy mm-hmm. sàkku ba mm-hmm. kon Abu Zayd moom moom la jublu mm-hmm. li muy wax xaaris ibn Ammaam itam jëmmi boppam ñu la ci jublu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaaris mooy fii aji fàggu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne kullukum aatun wa kullukum hammaamun képp kenn ku kenn ku ne ci day fàggu te kenn ku nekk yéen borom yi yitte la bu ko defee nag kon kii nekk xibaar yi moom jëmmi boppam ñu ngi jublu kon moom gaay bi yi am na jëmm yoo xam ne ñoom lañ ci jublu ñu gañee ko kale wa maa xasatu jublu mooy bil ijmaali ji toxalu fii ci téere te jeexal ma xam ne ci gàtt ma xam illaa tan fi daxaari yi nga sawar la wa takasira sawaari taalib yi ak bëri mbooloo mooy tàggu damaa bëgg rek nit ñi sawar ginnaaw dañu mën a bëri dañuy nirale jàngkat yi ak tukkikat yi ndax dañoo e, seetlu tukkikat bu fekkoon tey da nga am soxla toolam te sox rek moo tudd bu fekk war a dëkk nawu bi mën nga koo waaj ñetti at ko def ndeysaan bien dégg waaye fi nit ñi fekkee da nga naan suñu mooy sa biir bi ala maa ne mën naa am naa yeer చాలా చదువుకోవాలి ప్రజల సమయాన అలా పరిశ్రమించిన అలా కొంచెం కార్యక్రమం నేను మరి ఆయన మయ్యకు ఉదయం కూడా ఉండాలని చూస్తున్న తయారీ ఎవరి వాణి bu nee bu mën na ngeen ah mbooji na ngeen lewaay te ma caa dem rek ci neex na da ngay sawante mu ne ba nga xamee ne xamoon nga ne manding bi day tooro kon daal dëgg dëgg da nga naan fi ne moom mënumaa jóg ci waxtu bi bu subu manding moo xam ne xaw ma fu may tëgg xaw ma fu may fanaan xaw ma fu may lekke xaw ma fu may naan su ko defee itam téere bi biñ ko dogalee ay buntu buntu yooyu itam buntu boo nee nga ne ma teel ma jàngi teel ndax sama buntu bi jeex waaw man li waay tey jii waaye moom su ma jàng bu dee sama mën a bu sama buntu bi balaa la koy jëf mu jeex dégg nga su ko defee ku ko dee sawarloo nit ñi léegi nag da leen ko tax eh, a eh, gën a bëgg daal walam tuujibu dénku ma nag téere bi hmm. min al ashaari ci bayit hmm. al ajnabi yada ko ju jàmbur illa ñaari bayit fas tay na da yaari way bi moo da téere bi daal li nga xam ne dugal naa ko ji te moo da juróom fukki maqaam yooyu yëpp hmm. nee na ñeenti bayit laa ji dugal yoo xam ne man wayuma leen yaar yi nag dañoo beddeeku maanaam benn bu ne yaa ànd sa bopp toppante wuñu daal afastu fondement yeena alima ci ñaari bayit yooyu duniyatal maqaama di tabaxu maqaama al xulwaan yi di ba da ko ñu xulwaan am na ne ñu ngi def naa ci ñaari béy yoo xam ne toppante wuñu waaye yooyu wuyu jàmbur naa ko nekk li waa xëy yeneen ñaari béy taw am na ni da ñaari biir lamantuhuma tàppe naa leen ñeel xawaati man maqaama di ñu la mottali maqaama alkaraj yee di bala ko jub karaj am na ci beneen maqaama ci biir maqaama yi dëkk bu ñoo karaj boobu ci laa ko naa ci ñaari béy yoo xam ne ñoo toppante moo tax ma tuddi ñaari biir yooyu béy ci dem ñoom it wuyu leen xanaa wuyu jàmbur laa fa andi wa man adda saari ko lu dul yéen di bay bii fa xaati yi sama xalaat aboo xodri yi mooy bàyyi xiig moo de ki ko njëkk a indi aboo xodri moo de eh, jëkkër joo xam ne mooy njëkk a jël jigéen ñi ar buñ ne aboo xodri marati moo de ki njëkk a jël eh, ndaw si bu ko defee moo ne rek bay bi man naa ko ci maa ci mel nekk def wa muxtari bi xul wi te maa da aji jubri ji moo da aji jubri ji ak neexam wa mur yi ak wertanam mooy lu ci rafet sama xol bi ko génne sama xalaat bi ko génne lu ci naqari eh, rafet bi tam sama xalaat bi ko génne maa ci daal di yàlla ci biir sax daanaka badi yaa ci naka badi ma sama mu ma wax. rëy mooy yàlla yërëm ko àllaa sabram sax baaxu aaya ci ci baaxu def ay def. wasaay bu aaya damay borom ay kaas yëpp. waanal mu tësat yàlla naka ak kaas ma doon ci gannaawam. di intaay maqaam yi jëm ci suuf ay ma jëm ci suuf maqaama. wala bu jëm di jëlee ko naka baraaka na ku daama na baraaka ku ñëw ku daama. waaye sori bu jëm muy tànk ilaa min falaala min wala ci kalam euh, nee na it xam naa ne itam mm-hmm. bajjinu asamaan mm-hmm. moom mooy ki nga xam ne mm-hmm. dëgg dëgg dëgg moom daal moom la yàlla jox xam-xam mm-hmm. la yàlla jox ay kawtéef ku coppat na ci boon bëgg def xam-xam ne na ko wóor ne lu mu def lu mu rafet rafet rek na ko wóor ne rek na ci kawam la topp ci nit itam lay jël ci moom lay roy wala laay kii man ñeen na sama borom darul xaayili nee xam soowam aji waa jëne wala xab la nab kaa bakaytu sababatan bi sumu daa tafaytu nafsa xam la tanantumi ah. walakin bakat xab lii faha yénde lil bukaa bukaa fa qultul suma jooyoon mm. sa babatan ngir di topp mm-hmm. di suunda ci suunda mm-hmm. qabla mabkaaha ci njëkk koy daw suuf ñu naan suunda mm-hmm. safaytu kon ma saafara an nafsa sama bakkan nga qabla tana dumi ci njëkk réju suunda de bi nga xamee ne ñëpp dañoo xam ne maag moom dañoo bëggante xellante kon ba ñu ma jooy xay yegi dal li jeexi kaa

ma xatar xatari ci bile bebant allati ba nga xam ne awratuwoo rotal naa ko ci téere bi wala nawri di ak rootuba allati ba nga xam ne tawaratuwoo roon naa ko yaakaar naa ne mootuma ci nekk kal bàyyi ni ko aji gëf xan xat fii ci diyam bi til fii ak wiyaam wal jaadiyee ak aji njoof maarina am fii sukk bakkanam bi kaf fii ak tinqam yaakaar naa ne it maqaam lu waxiree yi ma ciy dugal ak itam mbuurante yi ma ciy def yëpp daal du ma ci mel ni koo xam ne rek moo di def dafay def lu koy lor maanaam doon mm-hmm. dafa am waay joo xam ne dafa amoon benn gàtt duñ ko bëgg a rey mm-hmm. fa mu demee ba tër ko mm-hmm. gis joosu gisul paaka bi foofu mën a dénk nii fu paaka bi ne gàtt bi dalee ni mu ngaa yëqoo rek ndeke ko mu mu mel ni kon nag ne nag gàtt bi nag kon moom moo fili di am jaay yaayam bi maanaam kon kooku mel na daal moo rey boppam nee na nag naa du mel ni gàtt booba dégg ak ka nga xam ne moo njooba ni ki lu ko demee ni ki xasiir euh, ah. ba mu demee jaxamru te doon a sama coup mm-hmm. ko doon dagal sama ma ba ma def ba suma gannaaw gi def góom mm-hmm. dégg nga dégg nga nga jox ma mm-hmm. pour ma mën a am politique yoo xam ne su ma demee jalaare lal ba mën a déggoon moom ba mën a xam ay secret ba mën a dellu si waat yoo xamal la secret ñu mën koo waajal pour rey ko ci xëcc bu gudd ah. yaakaar naa ne du ma ci mel na ni kooka xam ne moo doon joxlu boppam faa sabar soosa kon al dana ma yëg bil axtari ni ci gën jaaykat yi amaalan siy jëf allazina ñoore ñi nga xam ne lan la réer na sama yoon seen jëf dil xayaati ci dund bi addum yaa ba daaji jegéen ji jeex tamay àdduna bi waoon te ñoom yos ta boona ñu ngaa jot ne andoom naka ñu yuusi noonu danañu rafetal sunaan jib liggéey mm-hmm. su fekkee ne lii day ma yaakaar ne du ko jaam xam naa ko ci mm-hmm. kon de bon man ñi gën a perte ji ci laay bokk mm-hmm. te mooy ñi nga xam ne ñu ngi àdduna bi seen jëf yi dara baaxu ci te ñu ngi fa ne la ñu si gën li ñuy def

noonu la ci lay dëgg rek na de loxo googu daal ci la may waxee li may wax mm-hmm. ki nga xam ne itam daf maa bañ mm-hmm. di wéer wéer waaye moom xam ne dëgg gi waaye nangu ko laal ndég mm-hmm. mbañ gu ma mbañ kooku nu maa taxaw mujj ci man yàlla ma kooku dana musib bi mi nii ci man lihaatar wala xam ne kii dafay wax naan dëgg dëgg di kilifa war na jékki sax dan di taali wax yoo xam ne yéen eh, da koy wax rek di fartaatu di jóor rek wu dara amu ci wayu na te muy yébaane jaanoo ci naka defar lu mel nii min mën naa tarxe mu ngi bokk ci lu ñu tere sayid wama naqada ku gëstu na mu sax allah yaa yëfi bi aynil manxooli ci bëtaskal hmm. waan xamata a jaa a nasara fiet fii ma baanil usuli ci tabaxu waaye cosaan yi hmm. nasama kon mu noose haatihi l maqaamaat yi lay maqaama fii jirgil ibadatin ibadaat na da ci rax ñi jëriñi rek su fekkee nit ki daal seet hmm. na mbir yëpp mu seetee ko xel bañ koo seetee xol te itam mu seet mbir yi lu ci nekk la mu laloo kon nee na maqaama yi lu mu koy def rek daf koy boole ci yi nga xam ne dañ ciy jëriñi nit ñi ndax da nga ci nit ñi ci leen ci ay teggin yu bëri lu bëree bëri dana la ko jàngal ci biir maqaama bi su fekkee ne am nga seetantal mën nga ko ci gisee wasalaka te mu sóob ko te day na da te mu sóob maqaama yi ne da nga mm-hmm. ci la koy yëgal mm-hmm. wala ngis ma dégg loogu nag bi man ci koo xam ne na ba peccingal na sam mooy del suri na da sam dégg ma antir kali kaayaati wala di lay nettali mm-hmm. aw asama wala muy wuta bàkkaar xafar waata way nett téere fi téere maqaama yi fii mm-hmm. waxatin ci waxtu bi nag awxaati ji waxtu yi mm-hmm. nee na koo xam ne kii nag nanguwul a dégg lii may wax mm-hmm. wala sax mu naan dëgg dëgg waxtu bi sàngam kenn war a jàng lu mel nii nee na kooku moom kenn mënu koo xamal kenn mënu koo déggal su ma topp gannaaw yooyu yëpp sax isaa kaanat bu nekkee al amaali jëfe bi niyaate ci yéene dom su fekkee ne jëfe ndax tey ki dem ki jóg xame ndox dem sangu ji ak ki jóg xame ndox dem sangu ji mm. ak ki jóg xame ndox mm. dem am lum rak ci ay cëram ki jëm xame ndox ay rak ay ay cër ci ndox ngir mm. ñaar man leen ak alhamdulilah maxamadan xalim sangu li mu doon sangu sangaayal farata la bu sangu li mu doon sangu mënul sangaayal farata mu ngi ciy julli mu ngi ciy dara te ba li moom sangaayal naa dem julli ji te jàpp du def dara eh. te léegi itam ragg gi mu doon ragg ñu mën koo tuddee mu rek jàpp bu ko neexee mu julli ji bu ko neexee mu laal ci kaamel bu ko neexee mu wër ko defee mu def ci hmm. hmm. moo leen tàggale hmm. kon nag ku gis ne njëriñ yi la melee wan xiqaaril xoqooli tafatu fatfat yi ak diine yaa di rek ko di diine yëpp biaa aja xamee la ji ala man war na mu koo xam ne an saa foofu na moom wala an wax yu rafet mm. li tan bii ngir xeeti ci xam-xam mm. ak xeeti ci àdduna bi mm. laa li tan bii di jaag ngir ay naxa mm-hmm. war naa te mu jublu gaa ci wax yu rafet yi man a fii di jublu waaye sellal lal muy rafet wax yu rafetam yooyu dégg di ci xeete illaa bi man si la ti man rek mu nekk ci wàccu waay koo xam ne inta daba samp na mu ngir jàngale aw hadaa wala mu juble ilaa siraatin jëm ci yoon mustaqim wu daa jëf mm-hmm. ala an nii raalin bi an ahmilal waa lu axlusa min ula alayya wala liya mm-hmm. ha annani an rak naka man mm-hmm. raalin aji gërëm laa mm-hmm. bi an ahmila ci bu ma ñonot alxawa suma bànneex wa axlusa tama mucc min wu bànneex boobu laa alee di da ma ci benn bàkkaar wala liya te di daa ji nekk ñeel ma ci njëriñeen tiyaabo itam nee na man tax li bëgg sax su fekkoon naa ko te du ma ci jëlee benn bàkkaar du ma ci jëlee benn tiyaabo waaye li bëggoon rek def naa ko kon sax man doy na rawatina nag bi nga xamee ne mm-hmm. yaakaar naa ci tiyaabu ju rëy mm-hmm. te te bëgg naa bu ma defee li ma bëgg mm-hmm. wa billahi ci sama borom doom na nag ahtali du laay dëgërloo fi maa ci lépp loo xam ne ahtamiu dana ma jublu ko waa ahtadi mu tëj ci laa da muurloo yëpp mi maa ci lépp loo xam ne yëtti mu dana mu ayibal waa saa koo jubee yëpp ilaa maa jëm ci loo xam ne yëtti dana mu jublee famal mabson déet wala istihaanatu déet sàkku ndimbal illaa bi dara ci sama borom dëppale illaa minhu ndara ci sama borom mm-hmm. walan moom uridu uridu waaye illaa wa ndara muy sama borom mm-hmm. tawakkaltu wakkilu naa alayhi ci sama borom mm-hmm. wa unibu te dana ma dellu it ilayhi ci sama borom war na taxee noon danañu sàkku dimbali ko bii ci sama borom woo moom sama borom nii ma baax na moom almuheenu moom dong da aji dimbali almaqaama bi moo di maqaama al ula bi daay njëkk ak sanhaaniyatu ba da ko yëg sanhaan nee na ibtidaa tàmbalee na fiyaa ci maqaama bi mm-hmm. te mooy sanhaaniya boobu mm-hmm. yaa ngeen nako lu biir waa dee na net ana sanhaa naka dëkk bi naan sanhaaw mm-hmm. awalu baldatin mooy njëlbeen ab dëkk eh, su neat la géer nako ba na toofaan digg na ndoxam toofaan ñëwee yàqoon adduna bi nee na sanhaan lañ njëkk sañ moo tax mooy bi njëkk defee mu tuddee dëkk boobu nga a ba ma toogee mm-hmm. waaye maqaama nag bu ci xam ne benn la mm-hmm. daf ciy waare mm-hmm. waaw bu ci doon juróom benn nag dana ko jëfeel la mu xaala mu ne la ma xataatu bu ma toogee xaari bal istata bi ci jógërey tumaranke wa ana an nii te sori loo ma almatrabatu ñaak ñàkk xanil atrabi wala sama maag bi noonu tuma ànd ak samay morom ndax amuma li ñu am dégg tawaa addale sànni biyee ci man tawaa iwu sama ne ay mbëmbëree jamaano ilaa sanha il yaman dem ci dëkk bi naan sanha ul yaman fa daxal tuwaa ma tàbbi dëkk boobu xaawi yel bi faali daa aji féex ji mbuur naadiyal insaabi mm-hmm. daa ji feeñ ji fëggu daa mm-hmm. am li ko din mooy moom bul xatan bul xam mooy loo xam ne rek mën na laa jàllale doon da nga xam ne amul solo mm-hmm. wala ajiro din mooy fekk fii jiraa bi ci sama gafaga mul xatan benn lumb ba tafix dama xarab ajoobu da dog ruqaate aa yooni dëkk ba nit lal xaayi bi mbir ma da kem aji gëlëm waajuru damay wëndeelu fii aw maate a jaxaali dëkk ba jawalaanal xaayi bi kem wëndeelu aji ma waaruuru damay tàkku fii masaari yi lama haati ci wëttuwaay suma géndeeku yi wa masaari yi xadawaati ak doxuwaay suma xëy yi warawaati ak suma ngont yi maa ngi ciy tàkku kër yi man Mhm. Mhm. dana ma jox li wa ñël ko dii baaje tii suma doxam xarxaram waa bu wuta dana ma tudde illee jëm ci man bi aaji dina la ci suma aajo boo mhm. xam ne kii daal dama koy gis daal dégg nga lenqatalu ko tawadal ko suma soxla aw adiban wala borom xel mu adab tu farriji ko dana yër ruyetu ak gisam xummati suma mar wa turweetu dana dana eh, mandal riwaayetu nettalim kullati suma mar xata ah. adan nii ba fëli looma xaatimatul mataati mu jeg wët ga ah. waa adan nii te altaaga aji gu peeji ngeweti ilaa naarin ma jëm cim penji mm. rayibin mu daaji yaa mm. muhtawin mu daaji làq mm. ala sihaamin ci raj rajloo wa nayibin ak di jëddu ma dem ci penji moo xam ne penji ma dafa fees tell nit ñaa ngi buux buuxle ndég euh, nit ñaa ngi euh, buuxante dégg nga jooy yaa ngi ci biir penji moomu fa wala ci ma tabbi xaabatal jame ci digg mbooloo ma li at a ngeen na ma nattu maj da bata dame bi jiwaay ronga ñu naa ma xam ne sax nit ñuy jooy lan la a majjid i buuratil xalqati ci digg géew ba sax tal jëm sax tal xalqati bu daa aji teew ji ku aji teew ji bind mm-hmm. aleykum aji nekk ñoom óobatu siyaati yi lay dox boo gee da nga xam ne kii daal doxkat la mm-hmm. wala woo aji nekk la ñal ko mm-hmm. rannatu niyaati baati dijjantee maanaam ñuy jooy moom moo tax ñuy jooy woo moom kooka yet ba moom ngaay mu lab jaa sañoo yi di jawaahiri laf si ca wurus yaa moo day baatam ah. wa yaqaramata mu ngaay fëgg las maa noppi bi sa waajiri ma si si jajjey waadeem nga waxat ahaata ta mbiroom war na bii ñoo axlaatu sumari way jaxasooy mbooloo ihaatata la xaalati kem war ak pencem weer bil xamari ci weer wala ak maanaam ak kem war ak kàmboog ci sama bi samari ci meñ jegeñal fa dalaktu ma jegeñ mm-hmm. ilay jëm ca waaja mm-hmm. laaqa tawita ngir na ma jumu min fa waa idi ci njëriñam ya mm-hmm. waal taqita ak moom forat ba nga a fara idi leen ni baatam yi da way wéer fa sami ma dégg ko yaqoolu mu ngaay wax yi na xab ba waxtu ba muy ñàkk bii ma jaali ca wandeelu waayam ba waxadara tay bëmb saqaati fu irtijaali puuritam jurit ma mu ngay wax ba gémmi ngaa ngay génne puurit mu nga naan ayyuha saadilu iyow jile ji daaji ñàkk paal fii xola i ci jéggi dayam nga as saadilu fi laati ci ay réeram mm-hmm. aljanihu ko ɗaji jenge ila husna bi laati jëm ci ay nenam mm-hmm. ilama bakkan tastamiru ngay sax mm-hmm. ala kay yika ci sa réer gi wa tastamri u ta ngay neexlu marhaban yika sàmm waaye sa béew gi waataama bakkan te sa naaha ngay jot tayoo fii sa wi kana day ci sa réy gi wala tan tay ita teen ngay jajjo han la wi ka ci sa fobi to baari si yaa ngay léetoo daal bi ma seeti ka ci sabab si ngay mooy ma yàlla maalika ka buur bi ci moom de yaa ngi léew moom wa mm. tey a te ngay ñemeñ mm. di xubi tiira di ko ci ngir bon ak sa jikko mm. ñaaw ak sa jikko yaa ngi ñemeñ xaala xaali ni ci buur bi daa ji xam ci sa wata tawaaraata da nga wuta na bu xan xarii di ko ci eh, da nga wuta na bu xan xarii di ko walil ay jegeñ sa wa ànda te yow bi mar a raqi bi ko yaa ngi nekk gis waaye aji fuglu sa wata tax fii da nga da wuta nëbb min moom loo kii ci lu ñu moom sa loo moom na ndax mun nga ko nëbb te moomaa tax faa ci mbir sa tan fooga kaltina laa jëriñ xaalu ko sa mbir mm-hmm. ila ana bu teewee irtihaalu ko sag laxas jëm laaxira mm-hmm. aw yén xisu ko wala dana xeetali la maalu ko saalal ju bëri mm-hmm. yéen a ko waxtu wa dana xarak ko say jëf yi ñaaw aw yox nii wala dana jëriñ an ko jëw na dem ko sa réju isa salat bu tarxee deqa dem ko sa ndagu ci kaw siraat aw yén ti bi wala dana ñëwati aleeki ci yow masaru ko sa fango yow ma yellu mu ko bis ba dana tàppale gaay we mu halakita dayi ka sabara sa jangoro mm-hmm. wa palanta tanga damma sa bata indi dayi ka ñaw ka sa jagatigi mm-hmm. wa kadana tanga jaaji nafsaka sa bakkandi fa mm-hmm. yemam sa bakkandi akbaru an ah dayi ka mooy gën màgg say noon amal imamu du dee sax ñaa bi ko mooy sa dëruwaay sama indaa dugal lan ma fay sa xadu du ne du du dee mooy boo xam ne fii foofu rek na dee ab dëla boo xam ne foog nga dem waaw loo ko xadoo wa bir masi bi daaji nekk la ci biir jaay insaaru ka sag waadu sama insaaru ka lan ma fay sa ngànd wa bir lay daaji nekk la ci bàmmel ma xiilu ka sa place sama xiilu ka lu fay sa wax buñ la laay bu la malaaka ya laaj gisee waylu mm. laa jëm la ci yàlla nasiiru mm. ko tëg muj faman anaka nasiiru ko moo daa ji dimbale te ca kanam yàlla taalamaa mm. ay xasaka yàgg na bu la yeexee àddina jamaana fatanaa te ngay gëmmentu gëmmentulu wajata ba ko yàgg na bu la ñoo dee alwaxtu waade fa taqaa te ngay déeb déeblu na doo dem wata jalat yàgg na bu feeñee làkk ña la alxebaru waado xalam fa taamay te ngay gumba gumbalu waat xasa yàgg na bu weexee làkk ña la alaaku dëgg fatamaaray te ngay sikk sikklu waas ka naka yàgg na bu la fàttalee almawdu dee fatanaa te ngay fàtte fàttelu waam ka naka yàgg na bu la jàppandee antuwaasiyee bu la dimbalee fama aadati yow nanguwulaa dimbale toujours da nga tànn daal faltan koppar tooy boobu da nga ndabal ko mooy da nga koy denc ci sa koppar foofu wala ci sa porte-monnaie ala tikri na de ci kaw siikar tey boobu da nga mokkal ko nee na am koppar boo xam ne da nga koy denc moo la gën a jox la siikar boo xam ne da nga koy mokkal watax taara da tànn xasaran tabax tuun boobu da nga kowel ko ala birin ci njëkk tuun boobu da nga ko watar xabu da nga siit xanaa ci aji jub ta sa di ko jubal ilaa saatin ci ci yóbbal ta wa tuxalligu dana notal mm-hmm. ubba sawbin sopp malaan ta sa ta yi moom na foytu ko mm-hmm. ala sawaabin ci bi yool ta yi boobu da jënd ko bu mm-hmm. muñ naan yow danga ko fi am de moo la gënal def loo xam ne da ko moo a xal bi ka ci sa xol min mawaaqiiti salaati ci waxtu julli yi wa muxaalaatu sadaqaati li ñu seerale cen yi di ngoro gin si ngoro de kenn mosu ko fee ngoro aataru moo gën a tànn inda ka fi afin muxaalaati sadaqaati ji méngale ay saraxe wa sihaabul santaane ataa moo gën a foytu iléega jëm ci yow min saha idil adiyaani ci téere ay diina mm-hmm. wa dohabatul aqraani mbuurante maas gi mm-hmm. aana su moo gën a wéttale làkk ñella min tilaawatil quraan yi ci jàng alquran mm-hmm. taamuru da digle bil xarfi ci lu xiw wattante yi ko ta ngay xotti ba nga sori lu ani sulmi ci doo ci tooñaange su ma tax saa topp nga dikkal tooñ yow wa tax saa da nga ragalit adnaata nit ñi wallaahu te yàlla aa a an tax saa bu nga ragalat Mm. tabban li taalibi dunia sana ili an sibaba ma yatabiqu qaraman bi aafu fata sababa walaw dara laka baaba mi ma yoroonu subaba mm-hmm. tabban toroxale mm. eh, toroxte mm-hmm. wala halkare mm-hmm. li taalibi dunia ci àdduna boo ko ci àdduna la jëm waaye jëmul ci leneen lu may àdduna àdduna wa dara bu xamoon dara la kabaaw kon doy ko subabatin aji tuuti mi ma jëlan yëru mu ngi koy bàkk ci àdduna bi mhm. su may noo topp naka moom mhm. la bada dalal na mu xajaajatoo coowam la mhm. waqa yàlla te mu ngi dal mu jaajatoo puyitam gémmiñam nga wante la de te mu gàccoo sagwatoo gafakaam nga waaye wataa bada te mu poq daana te mu poq iraawatoo mbulam wa mooy itam wu réew ba jawee mooy ba xoolee aljamaatu mbooloo ma ilaa taxafus yi jëm ci waajam nga tëbam nga bëgg a dem waraa tañu ji taawuboo ak waajam li mu taa yàlla ci markas yi jëm ci a ñel ko sajdat baag min seli bu dikkee ca nayam ga waxaala ne ko mu ne ko mm-hmm. kenn ku ne ba nga ko joxee la nga ko jox lii la ko wax daf ko ne mm-hmm. idrib soppatal xaata lii ma la jox mm-hmm. fii nafaqatika ci sa dund aw fariqu wala nga teqale ko sa àndooy mën a sa àndandoo mu nangu ko minum ci ñoom muxliyan mbirum daa ji du muy wane ni man lii taxul mu woon a jox wanta naa tam ko ñe ko xarum bàyyi ko ci ñoom muf ni yan mbirum daa ji tagg leen wa jaala tam xarab yi wa dima da tàggu man képp koo

ne na lay ñaari dàllam mhm. ya wa a te mën a raxasit ri lay ñaari tànkam mhm. ya léegi su ma ajandu topp ma pett mhm. allay ah, ci moom ba ko jettoo ma fekk ko mu taatinan mu daal di wasoo li tirmidin ci taalibe ala ah, xubsin ci mburu samidin na de mu daal di weex wajadin ak yàpp xanisin wada wuñu wàjji nekk na ci seen ko de sa xibaar da moo def sa waaraate wu réew yi yow moo def sa xibaar waaraate jëf ju ñaaw ji max ko safara mu dalee fokki safaratul xëy fokki tàngoor wa merkon wakaare te mu jege yettam tàngoor wakaare te mu jege yettam mu yetal mu yoo mu songal an wa tawaaraata na bu waar wala katam wa am sabtu samp naa fi fiye suma onze te mooy moo ki may rëbbi euh, mooy doolin ko yooyu ñuy ñuy sànni ci biir géej ko jàppee jën ah. mm-hmm. boo gisee ma sol li ma sol nii mm-hmm. lu ma neex daal lu lu neex ci suma piox gi mm-hmm. moom laa doon rek jàpp ko mooy ku rek wa sawartu mu jël naay wax suma waade yooyu yëpp pour boole tan mu def fii pour yëq boobu dana ma sàkko biyaa ci ma alxanita rawu rawu góor wal xanita ak rawu jigéen waa jaani loru woon ma adda ci ma tàbbi bi lu fi ci yaali ci ñëw di suma ci dugal na maa dugal ba nga xam ne mm-hmm. mel naa ne ku fekk gaynde ci biir sutum mm-hmm. ala anna ni ànda na bala a man la baa man laka la alum maate ëla naqisati ñooñ wàññeeku yi mm-hmm. jamaano moo su fekkoon ne dafa mànd ci li muy àtte du seet ñi nga xam ne ñoo si gën a yées mu teg àdduna bi ci seen loxo ñuy fàtte suma mhm. xaalata moo lii ñeen um ni jegeñal mhm. fokkul ta nga lekk mhm. wayentii da bu la soobee fokkum nga jóg wokkul ta nga wax lu la soob yaar rek moo fi ne mën ngaa ñëw ñu bokk lekk naan ci li ñuy naan bu la neexee nga jóg loo wax man sama yoon nekku ci xaarit ne faltafatu ma geesoo ilaa tilmiidi jëli ji taalibeem ba wokkul du ne ko xasantu giñ naa àlleeka jëf bi man ci buur bi nga tas ta dafion yaa ngi sàkkoo jëñoo yaa ngi sàkkoo défense a way raajul xurabaay kay làmbul tumaranke ya mm-hmm. wa taajul udabaay tey ndëppal borom xel mu adab ya mm-hmm. fan faratu ma waññeeku mm-hmm. min ay to atay dafa ma dikkee woon waqalay di tana jeexal alxajaba kéeman naa jëla nga raayatu gis naa ko bay moodu ba laa leen walaan wax ne eh, xarit jàng na ne si adab bu fekkee ne da ngaa am soxla ci nit nit ki demoon barab nga gis ko muy egg weer hmm. da nga koy muñal jiit boo xam ne bu demee mën naa raggu mën naa denc lu mu amee man war koo denc mu denc ko nga war a dem yegg moomu hmm. waaye doo ko topp rek mu ne salaamaaleykum nga ne salaamaaleykum hmm. su ko defee moom am na lu mu waroon a denc am na lu mu waroon a def du ko mën a def boobu eh, jàngalaale na ko ci bi mu waxee ne eh, bi mu toppee góor gi bi mu demee def ko muñal jiit bu mën a sumee daal ndaxas ay tànkam su fekkee ne itam beneen da ngaa topp koo xam ne da nga ko doon reju maanaam pour bëgg koo bëgg koo jàpp dégg nga ak loo xam soo ko toppee ba mu dugg place am da nga ko war a muñal tuuti mm-hmm. ba nga xam ne war naa toog ba génne nag la nga xam ne nag pour bëgg ko deñ nga door ko pefoo ba nga gis mm-hmm. nga dugg mm-hmm. da nga doon wut doo ko gis ndax du ko laal waaye soo ko muñalee ab diib nag su ko defee ba nga xam ne war naa jëm ca la nga xam ne moom la doon nëbb nga bett ko su ko defee bon ñaar yooyu yëpp dala koo jàngalaale na de ci biir noon ala moom moo ne mu muñal ko diib boo xam ne mën na caa summi ñaari dàllam raxas ñaari tànkam Mm. dégg nga li nga xam ne moom bëggu doon góor bi doo ko caa bett mm. alhamdulilah rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin الخاتم الأسرى الناس بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم العظيم ما في رواية هذا رواية ما يقول ما نقول ما نقول ma ko al maqamatu ɗe mbaɗi maqama asaniyete mbaɗaji ñaare al hulwaniyete mbaɗa kodi hulwan hakkanetene ala haris haris ibne hammamin kay ɗon nama haala mune kaliftu soppo namut mitat waktu o yekkati fi hanni waɗitma attama ima guugal yima takkalo mi waɗo e gune tamoye galan yeg fas yeyi men noon hmm. wonnita taje mbiye joni arahama imu ay kaala hmm. tamoye mine magenana mbiyan hmm. soppona mbiyan arsaji moye ɗikkalat mahanal adali palati hemmo adali moye palati kam kam yiɗa dema sawaron ɗe jete ko day jëm jëm rikaaba tëra bi mm. waru waay yaa ñoo war a waaye càpptée bi mm. li ahlaqa ngir na ma xaju mm. minu ci nga mu adab bi maa ci doo xam ne yëkkoonu dana mu nekk sii na tan da taar lii ñeen na bay na anaami ci diggante bindee bi ndaxte yàlla ma am ci xam-xam loo xam ne bu nit ñi dajee dégg ñu mën ma ko euh, mu mën a nekk ci man waajaay doonte waajowu ma ba mos na tant daw ñiir itam indal uwaami fa marte itam mu mën a nekk loo xam ne su ma soxlaa a eh, a adam watamay asaman fii taqammudi libaati ci bubboo ko dayam mm-hmm. nekkoon naa ubaay sa dëgg toante ku mm-hmm. laman mu waxal laa képp koo a am mm-hmm. danaa fexe ba gëstuwaanteeg ci moom xam ah. bi mooy borom xam-xam bu bëri bi naa fexe ba jël ci moom tallu bi mooy borom xam-xam bu tuuti dinaa fexe ba jël ci moom mm-hmm. waa taxal la samay sukkandiku bi xan taa ci amaan na wala xaala ak yàllante woon mm-hmm. dégg nga fala maa xalal tu ba ma wàccee xulwaan mm-hmm. dëkk bi ñu naan xulwaan waxat balawtu sa mbiroom nattu naa ba xam al ixwaan a bokk yi noonu fexe naa ba xam ñi nga xam ne fi nag baax na ñoom ñi nga xam ne itam na de meluñu noona wa sabartu sama nattu al awsaana na mu wattaana ak la rafet na mu alfaytu ma fekk biyaa ci dëkk ba abasarin abosarin ak soro jeeka da ko ci soroj yetaqala bu mu ngaa jaarabe ko fii xawaali bil intisaabi ci muulu waaye askan yi tey mu muulu mu dugg jëw la askan ne ca la bokk soo mm-hmm. léegi nga fekk ko mu ne ca askan wala la bokk wa mm-hmm. yox bi wa yax bi du tam ngaay dajitu mm-hmm. fii asaali bi iktisaabi ci fànni fàggu alal yi tey mu fàggoo nii ëllëg mu fàggoo na le fa yeddaxee dana mu woote taaratan jamono ne and na naka min aali taataan mu ngi bokk ci giit taataan wa yax tasi dana mu na lay ci uh, mu génn tawran jamono fii tiaari soxaraay ci njillaay waykat yi mu def benn uh, saayar bu rëy wa yalbasu reeguy rëy mm-hmm. bayraa noonu dara naka moom maa mm-hmm. tala wu ni haali yi ànd ak melokaanum mbiram moomu mm-hmm. wa tabayu ni mu haali ak leer ak fenam ya yettaalaa dina mu takkaayoo bi ruwaayin ci taar wa riwaayatin ak sole wa mu daaraatin ak matlaa wa diraayatin ak xam wa balaaxatin ak balaaxa dégg raay àddina de bu daa ji tiiloo wa ba di àddina ak ak juri mu taawee àddina bu daa ji topp nga xam ne lu mu bëgg a wax rek amul lu muy jéer hmm. waa daa min ak ngeen maa dam baari àddina de yëda way raw ah. baka damin ak ndëggu hmm. baari àddina bu daa ji koy li alaa min wala min a de ci dojo xam-xam yi hmm. ba kaana nekkoon na yun ba su dee fi jaxasoo moom alaa ngeen laati ànd ak ayibam yi lu tax li maa dina alaati ngeen way rafet yi jumtuwaayam yi jumtuwaay xam-xam yi rafet yi tax na daal lu mu ayiba ayib waxtu ne rek nit ñaa ngi nit ñaa ngi ko sënk ànd ak moom de xam-xamam bi wa yun ba dee na jéggi ilaa bi yëti yi jëm ci gisam li senti riwaaye di ngir yaa borom bi mm-hmm. boo toll itam ku nekk nga ko ana fu aboytari ne ana fu aboytari ne pour pour ma gis ko fekk mm-hmm. du dara waaye loo ko laaj mën la jàttoon bu loolu moo tax mm-hmm. wayul xabu dees na si xan moom bi mu raadee ci la mu namm li ma soo ba di iraade ngeen neex ak la muy rotal baxal fa temps laxtu maxat yu bi aadaabi yi ci ay seen baanam li xasaay di aadaabi ngeen yi ñu jagale ngeen mu adabam war naa fatu damay gànjirante fii mu kaafaati ci sellante moom xarit li nafa idi sifaati ngir way a meloom mm-hmm. fa kuntu bii aj loo xumoomi wa aj tadi tamaani yetal xal waji multamian liya mm-hmm. ara qurba wa qurba wa maxna wa kun yetan wa ruyata wa biyan wa mahya wa li haya mm-hmm. fa kuntu nekkoon na aj loo da feeñal fii ci xumoomi sumay yitte wa aj tadi samay feeñ man tamaani di dal joxaan sama kal xal waji daa ji tàlli ja xal xana multamian mel xati jig leer ara dina ma gis qurba wa max naa wa dana ma gis këram nga itam xun mm. yetan mu xam-xam bu ma xamal boo xam ne mosuma koo xam mm. dana am itam lënd boo xam ne jaaxaloon na mu leeraloon ma ko ba ma xam ko mm. ilaan ja daa jëm ci ba jaxase la wa ko yëndul imlaaka loxool ñàkk kasal firaaxe kaasab téqale ko tuumal lu daal ñàkk daal nag day rekk na leen moo ko xiir na day ci mu jógee ci dëkk ba pour dem mm-hmm. waa raawu te xiir ko mm-hmm. adamul xolaati ñàkk ak feeñu te mën a ñàkk lu mu faraatu daal ci dëkk ba mm-hmm. moo ko xiir bi tal lii xen xeraati ci fase xeraa kooku mu nekkoon pour dem wala fasadu sànni ko maanaam wisul irfaaxi jëfeeñ ak jëriñu ilaa ma faa wisul aabaaxi jëm ci xaalli gox ya wala sa moo ta noote ko fii silki rifaaxi ci ràng setti xuboo ko raayatil irfaaxi pir le laas da eh, xiraara xasmati ñaw kaak dugum nga li riñ la ti ngeen laxas bàyyi ko ci ngeen àgguhu wasaana tamu laxas yaqtaari mbirum dana moom alqalba suma xol bi daa si ma ci ca nosam fa ma laaxani man laaxani bada buutihi wala saaxani man saaxani li wisaalihi wala laa li mun nanta ni dun li fatihi wala suu xilaalin xaasa mit la xilaalihi fa ma laaxani soppalootul ma man képp koo xam ne laaxani dajee na moom moom bada buutihi ca ginnaaw suri aboo séri ndax du ma gis mu mel ni moom wala saaxani soppalootul ma it man képp koo xam ne saaxani maa nga na ma li wisaalihi jëm ci jokkum wala laa mm. wa satara mu daldi nëbbu mm. an nii walis xari bu dee mooy xam loo ñeel ko xari ab gol mm. wala aji du dee mooy fekk mu bii noon aji bidal am na ci ma benn mbir wala maa ut ba ma googu ilaa moom bi di suuf ba di jëm sax waaye suma sukk sukk te mooy dëkk ba ma juddoo ah. alors ma teewal daara ku tubi ak ak téere bi alati kat ak téere gi nga xam ne i dama mën tadal mu taadibina moo def dajewu waaye borom xel mu adab yi wa mën taxal kaane dina te moo def pénc waaye borom xel mu adab yi wa mën taxal kaane dina tey daje waaye way taxee minum ci ñoom wala mu taxari gi nag way tumaraankee balaa ci téere yi nga xam ne bibliothèque la boo xam ne bii nag dañ ñëpp a dëkk ak gan-gan ñëpp foofu la ñuy daje mm. kenn ku ne téere boo soxla rek man koo jël dayéer fa taxala tabi ba soo li yétin waa ji de boromam sikkiñ kosatin bu daaji tal mm. waxaya atin ak melo rosatin bu daaji ràpp mm. fa sallama mun na yoxanal ci laa ci way toog yow wa jalasa tamu toog bi uxrayaati naati ci cëti nit ñi mooy dugg ci

yëngal hal mm. xasarta mm. ndax yër nga lawo ñël aboo ma baada fii maa ci la nga mm. ne la ma too géndee ko xaale nga ko ci bi mu ne ne ka annama tabtimu an lu'lu'in mu wax ne dana mu muuñ an lu'lu'in walit ba ñuy ba ñu mel ni li ñuy wax barat aw aqaa wala li ñuy wax ñu di ko firee jaatoo bay noonu naka moom ab ab waxabaat ab daa dikkee na mu ba dima fi tas bi ci ndira léegi fi tas bi ci ndira léegi al moo demee ba daguñ dénk fii ci bayri ndira léegi bi muy ndira léegi bañ ak alhamdulillah maqamatul